ridwaani wa tamkin wa radiyallahu an baqiyati salaf wa xudwati alxalaf faxri ddiini walwatan mawlana alabdi alxadim ahmad bni muhammad bni habibillah assalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu ñu ngi yëkkati kàddu yoo xam ne kàddu yu ndigal ngi bàyyi ci sëriñ bi di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak muy kàddu yu yëkkati jëme ko ci ganam gi nga xam ne ca dogalu suñu borom moom la yàlla def tey mu jiite réewum Sénégal di président de la république Bassirou Diomaye Faye kon sëriñ bi nee na mi ngi yëkkati kàddu yu ndiw ak dalal jàmm ak cant ak ngërëm jëme ko ci yow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 la yàlla def cofeel gi nga am ci moom moo itam am ko ci di ko seere fa néewut te la ca la ko ci ëppal solo mooy nee na diine ji diine ji nga xam na gis na ko ci yow ba ca desit gis na ne sa yitte jëpp mooy jéem a liggéey réew mi loolu yëg na ko bu baax kon nag nee na la ca desaat nag mooy ni ngeen jëmee seen yitte ci dëkk bi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 jiite gi nga jiite réew mi te bi fi ñëwee keroog ñëwaat fi tey lépp daje naa ko taw loolu nag kon mel na ne mandarga mu rafet la te borom bis bii bi mu bàyyi koo jeewal di wuy ji gouverneur ca Ndar ci biir yoon wi taxaw naa tawte wa nahnu namsi wal mataru yarasu alina daifan ku dem ci téere yi da ko ci gis mbind wi kon loolu mandarga mu rafet la yéene ji nga am ci dëkk bi it xam na ko ndax mboolem kuy ministère boo xam ne mi ngi ci sa ron tàmbalee ko ca sa xarit di premier ministre Ousmane Sonko ak mboolem ministère yi nga xam ne ñëw fi ñëw ñëpp bàyyiwuma kenn ndax boo lim nañ ko te boo limaatee da ngay juum waaye ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëw nañ fi ku ca ne it def na yéenam def na la man def la mënut ndax ko xam nguur nguur guy door a tàmbali bu ngeen ko jëfatoon it lu tax ñu ñu ñu mere leen ci lu tax ñu sikki leen ci ndax xam nañ fi àdduna toll waaye nag nit bu amul lu lu dul lenn nga taxaw ci jàppale ko ci def ci la nga mën ak la ci des loo ci jëfutoon itam dala koy jigal te ñoom ñëpp nag kenn desut ku ci la def nga la man def nga la nga ko kon nee na mi ngi lay ñaanal yàlla suñu borom kàttan la dëgëral la na nga xam ne daal kóllëre ak cofar gi lépp téyel na ko téyel na la ko nongul na la ko tey dal nam xel ci itam nag démb rek waxaan na ko mais sama xel dal na ci moom te sëñ bi moom du koo xam fi mu toog xam jataay bi mu toogee xam fi mu toll ci diggam ak lépp lu muy wax rek ngir yàlla tax mu di ko wax ndax moom amul lu muy séntu ci amul lu muy bëgg ci kon nag bu yàlla defee suñ borom def mu gis rek nga am ci moom ak cofeel mu am ci ak cofeel loolu taw fiix la jure suñ borom defar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 mooy cantu làmmiñ cantu xol ak cantu jëf cantu làmmiñ mooy la in shakartum la azidannakum cantu xol nag mooy wama bikum min ni'matin fa minallah nga xam ne gépp xew ko am yàlla la ko jox cantu jëf nag mooy i'malu aal daawuda shukran waaye déggal la suñ borom teg wa qalilun min ibadiya shakur kon bis bi bis la boo xam ne Sëriñ Tuubaa dafa wax ne képp koo xam ne sama mbég sa mbég na ko ci ñëpp sant la moo ko njëkk defal boppam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 lii fii tàng kon gis ngeen ko xalif baa ngi noonu di ñaanal euh, président de la république euh, son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye mu ngi nii di ko ñaanal amin Mbàkke ñu ñëpp wax amin xalif baa ngi nii sëriñ Mountakha Bassirou Mbàkke Euh, ñi amin mu ngi ñaanal président ak délégation bi yëpp ci teewaay Cheikh Bass amin mu ngoog sëriñ bi amin yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp ci barke sëriñ bi mu kon ñaan gaa ngoog président de la république euh, Bassirou Diomaye Faye euh, xalif général des Mourides sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké ñaanal na ko ñaanal délégation bi yëpp ñaanal ko yen bi woyof lool ci kawam moom njiit réew mi président de la république son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye nga xam ne wax dëgg yàlla taalibe yëpp kontaan ñëpp ñëw kontaan nañ ci ñëwam bi fii tey ci Touba mu nekk ñëw bu am solo daanaka ñaari ay bés rek bim fi jógee mu ñëwaat fi tey ji nga xam ne màggal gi eh, daanaka ay fan rek yu néew moom moo ci des ñu yegg ca nag mu ñëwoon fii eh, jël si ñaan gi nga xam ne moom la ko sëriñ bi rek ñaanal ak délégation bi yëpp di wax ne rek lépp li nga xam ne kon sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké ñaan na ko eh, sunu borom def kon ay tawfeex yu bari